merci beaucoup xam ngeen ne maa ngi nuy assemblée nationale yëpp di waale le président nuy nuyuwaale député yëpp di gërëm ñëpp kenn xamagul fan laa jëm man rek maa sama direction léegi nag. xam nga assemblée nationale yàlla ñu baaxee baax la ñu am ay député yoo xam ne ne ay fecckat simba la ñu woon maa la wax loolu loolu nag problème la bu rëy ci biir institution Sénégal mais mbir la boo xam ne ne bu ñu jëloon di fal ay député titulaire njuumte ñëw suppléants yi jàll te ñooñu xott la ñu woon noonu la war a mën a demee mais il faut ñu wax man mii yaakaar naa bu ñuy bu ñu bu ñu leeral askan bi leeral dara député amul benn pouvoir di tëj benn nitu kaso amu ko benn député amul pouvoir boobu magistrat la réew mi askan bi jox plein pouvoir wala loi protéger leen ci wàllu tëj ou convocation ou def lii mais ñun ñuy député yaakaar naa tout député légitime laa wax voter ce projet de loi là man dama koy voter man pas toog naa ak non dëgg dafa baax parce que wax nañu lii am na lii amul mais bu fekkee ne député yi yoon may na leen ñu saytu xool xam li xew nañ leen jox cër boobu bu ñu paree nag lépp day dellu ci loxo magistrat yi député amul benn dogal di mën a décider diw dañ koo war a tëj wala diw dañ koo war a dàq saytu rek lañ la wax li am ak lii amul dëgg ak lu dul dëgg loolu quel la le problème yaakaar naa ko de ci sama xalaat bu gàtt léegi nag bu nit ñëwee fii xam ne ay caméra nga ñemee jël ay kàddu di wone di wax loo xam ne ni kenn mënu koo comprendre man député laa à l'Assemblée te nag bokk naa ci doyen yi nag ndax maa ngi ci ñu nag ñoom ak dumbo ak ñeneen on est à nos troisième mandat kon nag bu doon député am na fu muy jàngalee mën nañu joxe ay cours logiquement walla Abdou kon nag Assemblée nationale xam ngeen ne Farba Ngom génn na fi ndax majorité bi mu ngi dox normal te bëgg naa lool ci suñu président du groupe non normal sax ak tout le groupe de Benno Bokk Yaakaar mais tey xam ngeen ne bisu exceptionnel bu nekk rek man damay ñëw taw tey bi commission enquête dinaa ko voté ni ko Matar Diop di daan wax voilà lu tax ma koy voté nag du leneen nekkuma membre PDS bokkuma coalition wàllu mais assemblée nationale bi ñu ñëpp ko bokk ñoom ñu ko déposé ce sont des collègues et alors que lu tax ñu war a jóg taxaw di ko voté parce que c'est une affaire pour éclaircir mbir la boo xam ne dañ ko jiiñ wala ñu tuumal ay nit dañ ko war a leeral te loolu assemblée nationale yaakaar naa war nañu am droit boobu te tamit comme li may faral di wax ñun duñu tëj du ñu ubbi duñu dugal mais leeral bi nag daa war a leer man de man comme leeral boobu am na ci man bokk naa ci ñi bëgg mu leer te tamit am na ay collègues députés yëkkati nañu fii ay kàddu yoo xam ne am na solo trop bu ñuy bëggee mu leer gis ay ñeneen nit jël yeneen avocat yoo xam ne dañoo am par parloo jël seen engagement bopp jël ñoo ñu ñu jiitee seen combat mais magistrat porte ne plant lu tax muy porter plainte daa bëgg lu leer les députés qui font partie aussi nekk ay députés ñoom aussi porté wuñu plainte mais dañoo bëgg mu leer man damay voter te tamit bu ñu doon ñaari loxo la ñuy voter dinaa yëkkati ñaari loxo voter mu boole ci benn tànk damay voter voilà. Merci, chers collègues. La